ñaan ñépp nag ñu bàyyi xel ci julli gi sunna la ku mën dem ci jullikaay ba nga dem jullikaay bu julli ji moo gën ku ko mënul nga jullee ko sa kër nan nga koy jullee sa kër jàpp ba set def ñaari rak rak bu njëkk bi juróom ñaari kàbbar ràkk ñaareel bi juróom benni kàbbar nga jàng fatiha ak saar wi nga mën loolu mooy ñaari ràkk it defee ko ci jullikaay ba nag mooy yoon su ngant amee ba munoo fa dem mën nga ko defee sa kër ñu mel ni soxna yi bu dee mënuñoo dem mën nañ ko jullee seen kër buñ mënee dem jullikaay ba nag moo gën parce que yenente da daan yóbbu jigéen ñi xale yeeg ñëpp la daan yóbbu ñuy ñëw di teewe jullikaay ba di fekkee yiw wa fay wàcc ak mbooleem leer yi wàcc ci bés boobu kuy dem na nga sangu na nga dagg sa wee na nga wat sa karaw na nga sol yére bu bees boo ko amee soo ko amul yére ba nga amoon nga defaraat ko ba mu rafet nga sol ko parce que bésu feet la bésu sañse la moom rek la ñu am loolu ñu bàyyi ci xel sooy dem na ngay tudd yàlla yoon bi nga jaaree booy dem sooy waññeeku jaaral beneen yoon loolu ci politique gu lislaam la bokkoon yooyu yëpp ñu dekkalaat ko ci sunna yi la bokk bés bi nañ bari luñ ci zikkar nañ bari lu ñuy tudd yàlla ci bés boobu muy bésu korité bi moo bésu tabaski ñoo yem balaa ngay dem na nga ndékki boo mënee ndékki boo mënul ndékki nga lekk tàndarma maa nga naan ndox ba ñu yëg ne koor gi dagg na nga doog dem te bu dee ci jullikaay ba ngay dem soo yeggee bul julli ñaari rakk lalal sa sijaar rek nga toog xaar ba imam ñëw kenn amul droit dem ci jullikaay ba taxaw fa di julli ñaar ràkk te imaam ñëwagul ba julli déedéet même bu dee am na ñu koy def loolu erreur la boo demee ci jullikaay ba te nekkul juma lalal sa sijaat rek nga toog xaar ñaari ràkk iid bi mooy ràkk yi ñuy ubbee la journée bi su dee ci jàkka la nag soo duggee defal ñaari ràkk nga nuyu jàkk ji toog bul defaat beneen naafi la ba ñu julli iid ba pare nga door a teg say xeeti naafila yoo mën léegi nag li ci des mooy boo dellusee baalonte àq ak say mbokk saafuwanteeg ñoom jàmmalanteeg ñoom koo ci mën a dimbali nga dimbali ko su ko defee mbokk yi mel ni na loolu lenn lu ñu doon tënk ci muuru koor ak bésu iid bi xam naa waxtu yu gudd na sax waaye na ngeen ñu ko jégal di jaajëfalaat waa équipe Al Amine TV yëpp ah di leen wax ba déwén ak jàmm nañu yàlla may ñu fekkee kooru déwén waaye jaajëfal leen ci liggéey bu espécial bi ngeen def ci kooru ren gi yàlla rek moo leen ko mën a fay yàlla na leen ko yàlla fay jaajëfal la caméraman Aljuma Sow jaajëfal sëñ Babacar ñoom Assane ñëpp rek équipe bu Al Amine TV yëpp ñu ngi leen di wax bal leen nu ax bal nañu leen yàlla ñu yàlla boole jégal yàlla ñu fekkee déwén fa fa kullu aamin wa antum bi alf alf alf xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.